asalaamaaleykum mbokk internet dakarnet point com ah, comme ni nga defee saa su nekk di dalal ndaanaan yi ak ak ñun ñëpp daal ñoo xamante ne dañ leen dalal fii ci dakarnet duñ def lu jox ko ah, Pape Sarr tey moom la invité mu ngi nuyoog mbokk internet dakarnet après ñu ko mën ci waxtaan Pape Sarr ñoo ngi di di ziar. waaw dellu ziar di nuyu équipe bu dakarnet yëpp di ko commencé ci kilifa bi ci kaw ak ñu nekk ci kër gi ñëpp ci kaw ba ci suuf maa ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp. di nuyu waa Yoff bi yëpp waaw di nuyu waa Pikine mhm, di di jaale Samba Sarr di ko ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana di masawu njabootam yëpp doomam yi ñoom Souley Ibou Sarr suñu kilifa suñu ndijaay xam nga suñu maam buudi maa ngi koy masaw bu baax a baax a baax ak képp ku bokk ci famille bi ak képp koo xamante ne tey si njabootu Samba Sarr nga bokk xaritam nga ASC cosaan ASC yu nekk pikin yëpp maa ngi leen di jaale Samba di ko jaale Pape Gorgui Ndong tey di ko jaale tey képp ku nekk tey Dominique waaw maa ngi la koy jaale hôpital bu Dominique di ko jaale Pikine yëpp yëpp yëpp yëpp di ko jaale diaspora bi di ko jaale adduna daal waaw mi ngi noonu tey ah, Pape Sarr la ñuy dalal moom moo doon nuyu noonu mbokk internet wu Dakar ne yi mais fi ñuy dugg rek mooy que ni Pape Sarr ah, gis nañ ndesaan dem si ci ah, Samba Sarr yàlla na ko yàlla yërëm bi mu génnee àdduna ñu doon laaj tey jii nii ba xam amoon na ay autorités yoo xam ne tey jii déplacé wu ñu ñëw jaal kii di Samba Sarr. waaw loolu moom mu gën a indi parce que dañoo gis benn déclaration wu Augustin nee na Samba Sarr xaritam la balaa mooy jublu ci Augustin Macky Sall laay wax waaw président Macky Sall. ma koy nuyu bu baax a baax Macky Sall damaa bëgg mu fàttali ni tey balaa muy nekk président balaa muy nekk ministre bi mu ñëwee kër Lobaat toog ak suma maam Lobaat ki toog ci wetam mooy Samba Sarr. Samba moo toogoon ci wetam. moo toog ci wetu Macky Sall boobu Macky Sall du président du ministre ñaareel bi suñu benn nijaay gaañuwaat ci kër gi gaañoo Italie muy Thierno wadd Wade Macky Sall ñëw ci kër gi di jaale si daane dafa ñëw di jaale si taxaw ñëpp di dégg Macky Sall boobu président la mu ne Lobaat Fall man sama ndijaay la kon Macky Sall rey nañu jarbaatu Lobaat Fall Augustin nee na Samba xaritam la Lobaat Fall dee na gisuñu fa Augustin tey lii si si si si si si kiiwu Augustin la Samba Sarr deewee amul kenn ku topp Augustin ku woo jaale ñu mais comme ni ñu gisee ne ah, ki ngeen yéen ah, Augustin mais est-ce que tey moom bu ñëwoon ah, tey jii foofu noonu ci bés boobu noonu est-ce neen moo tax ñëwul ci suur bi ci suñu yaakaar. xoolal billaahi wallaahi laay waat tallaahi bi Samba Sarr di dem Oxygène ba loolu dal ko leer na ma muy man muy sama morom muy Samba Sarr muy Augustin ñooy bokk pax billaahi wallaahi wa tallaahi laay waat Samba Sarr bi muy dem bu ñu tàggu woon ñu ànd ak moom Augustin du génn Oxygène. pourquoi du génn oxygène du ma génn oxygène. billaahi wa bakkanu Samba rot foofu sa Augustin ak ak man ñun ñëpp ñooy bokk ci pax barki yàlla. mais léegi moom pourquoi mu génne Samba Sarr xaritam la. xaritam sa xarit mooy tey lii dal na ci kaw Samba Sarr sa téléphone xool ci famille bi kenn nga jaale ñu lu ñaaw la Augustin def amul kenn ku nekk tey ci kii bu foofu ku fa génn ñëw jaale suñu loolu laay wan waxul dëgg. di wax Macky ogisee nga dénk suñu football bii indi lu ñu coupe d'Afrique indi lu ñu coupe du monde bakkan bu rot la la teg la la teg sa loxo. mais yéen ba léegi essayé nañ def seen enquête bi nga doon wax déposé. mu ngi si wàllu ngu mu ngi si yoon mais ñun famille bi fu ñu xam ni ñi daw ñi def loolu fu ñu xam ñun dinañ leen fekk ji fu ñu xam pour yoon def gënal def liggéeyam yoon la ñu bàyyi mu def liggéeyam yoon. dañoo bugg mais ñun tey ñun ñëpp dañoo calmé woon mais Augustin bi taxaw ne Samba saar xaritam la moo ñu génnee ah sa xarit bu génnee adduna da ngay yëkkati jaale ay mbokkam wala nga yónnee fa ndaw amul kenn kuñ fa yónnee ndaw ku dul kenn ku bokk ci nguur gi muy ministre Pape Gorgui Ndong mais ñun Pape Sarr bu ñëwee ah, jëlee interview ci suuf yow gis nga ne yow baal nga ñëpp ñu ko doon def ñëpp baal nga dama dama dama jëloon lépp dama ne la dama ne la man laa la sama côté laa wax mais dama ne la dañoo toog loolu bi may wax loolu pour man ci instant yi Augustin dina yóbbu dina yónni ndaw wala kenn ñi bokkoon ci affaire bi oxygène kenn dina ñëw jaal ci Samba Sarr du kenn ñun loolu moo ñu metti dama ne la Macky Sall laa wax ki nga dëkk footballu Sénégal indilu la coupe du monde indilu la coupe d'Afrique bakkan la teg sa loxo monument bu mag moo dee pikin te nag ñun lii duñ ko bàyyi duñ ko seetaanee ni mu niil de. lan moo waral nga jugaat yow taxawaat ne doo bàyyi parce que dañoo déggoon sa kii nga ne bàyyi nga. li mu nekk pikin dégg nga ñu ñëw ne ne bu Samba Sarr ñëwee bu mu dugg. mais moom kenn ci ay kii kan euh, yónniwul. yónniwul kenn ku ñëw foofu jaale Samba euh, euh, Sarr. amul déggoo ma daa toog ci télé ne Samba Sarr man loolu moo tax ma ñëw fii loolu laay wan ni loolu laay wax li ay fenn kese la du xaritu Samba Sarr parce que Lobatt Fall kilifa bu mag la dee foofu ci kër gi Augustin ñëwu fa jaale si ko. kon bu mu wax Samba saar xaritam la bu mu indi ay lay bu mu ñu layal ñun duñ ko nangu duñ ko loolu duñ ko dégg Samba Sarr du xaritu Sam Augustin. dafa bëggoon jaar seen xel quoi. mënu ko dama ne la indiwuloo ñu kub d'Afrique defoo suñu footballu Sénégal dara dama nela la say pexe la Samba Sarr deewee parce que tey yow yaa organiser loolu ba pare maa ngi dégg ñu ngi koy def foire bi yow koo xam ne amul sax juróom-ñetti fan. li tax ba Samba Sarr dee ngeen ko bëgg a organiser ci foire bi Macky Sall waxal ci lii. ngeen ko bëgg a organiser tey ñun jot nañu ci information yi dañoo bëgg organiser li organiser woon oxygène kii nga xamante ne tey mu ngi dee amagul sax ñetti fan ñuy organiser waat loolu. loolu ñaaw la ci Sénégal. yéen la mooy seen taxawaay ci loolu. ñu ngi woo ñëpp si ci jardin bi point de presse ñuy woo Sénégal yëpp di woo tey tele yëpp. tey dañoo war a def ak famille beeg membre ASC cosaan ak kilifa yi nekk cosaan ñu toog parce que lii du sedd de lii ku jàpp ne affaire Samba Sarr bi dem na denc nañ ko rek dina sedd yaa ngi nax sa bopp de man nag bàyyi woon naa lépp parce que tey mbooloo boobu noonu ma gis Samba Sarr topp looloo tooyal sama xol ba nga xamante ne bàyyi naa lépp mais yow mënuñu la toog invité la 2S plateau 2S TV nga ñëw naan man Samba saar dañuy déggante téléphone xool nañu numéro téléphone Samba Sarr gisuñu si turu Augustin. xool ngeen ko vérifier lépp. vérifier nañu turu Augustin Senghor amul ci téléphone Samba Sarr. benn téléphone boobu la Samba Sarr yooyu. ñaari téléphone yëpp turu Augustin nekku si waxul dëgg. Augustin waxul dëgg numéro ñun ñun ñoo yore téléphone ñun ñooy ay jarbaatam ñoo téye téléphone bi xool gis ay numéro téléphone ay autorité ak ay kilifa mais Augustin turu Augustin nekkul ci téléphone Samba Sarr waxul dëgg li ñu metti mooy. tey waroo danga nga waroon a ñëw yónni say ndaw ñi bokk ci football def délégation ñëw suñu biir kër ñëw jaale si waajuru Samba Sarr. mais man ñu may dégg ne bu defoon loolu tey ah, ah, leneen mun na fa xew moo tax man ci luñ ci luñ. waxuma mu ñëw mu yëkkati téléphone mu woote Pape Gorgui Ndong meeru Pikine wees la di xaritu Samba Sarr moom moom Augustin bu woowoon Pape Gorgui Ndong dinañ ko jox si numéro famille bi kenn. du dëgg nga woote nga ñëw xam nga joxe sa njaal ne kat si gileen ndigaale mas ñun sax ñu mun a giif mais nga toog ci plateau 2S di fen di dajale naan Samba Sarr sama xarit la dañuy wootante téléphone ay fen la loolu ay fen la maa ko wax waxul dëgg loolu du dëgg ñun dañoo jël ñaari ni téléphone Samba yëpp vérifié gisuñu numéro Augustin warul toog ci taxaw di naan ay man Samba Saara ba yow ñëwoo jaale si ki dee dégg nga say réunion moo tax mu dee ci buntu buntu oxygène yow jaale si woo ko ngay taxaw naan ay dañuy déggante téléphone ak sama xarit laak di wax na lii leer de lii dina leer lii dina leer may wax senegal Augustin amul dara lu mu def ci footballu Sénégal maa ngi xaar ku génn di ko défendre man ñun ñu ngi koy xaar ñun ku génn di défendre Augustin dañuy jàpp ni yow ñi rey Samba saar ci nga bokk nee na jàpp ne Samba saar dañ ko rey. mais Samba Sarr dañ koo rey mais dañ ko rey. nan lañ ko rey. dañ ko rey ci buuxante boobu ñu ko buux tere ko mu dugg yor sa yor sa convocation nekk kilifa ci Pikine def lu nekk pikin xam ñoom dañoo xamul woon Samba Sarr mais bi ñu dencee Samba saar ci lañu xam mooy kan ci la xam ne Samba Sarr ku dul Augustin Samba Sarr ëpp baat Samba Saara la ëpp mbooloo Samba Saara la gën a dëggu Samba Saara gën a gën laa yor xol bu baax ñoom dañoo tiit fi mu toll nii parce que gis nañu mbooloo bi xam nañ ni kii ñu faat kilifa bu mag lañu ñu faat nii la affaire bi demee mais lu ñuy métti lu rek mooy tey Augustin moom moo waroon yëkkati téléphone am ñëw woo kenn ci famille bi noo jaale ñu quoi. mais saa ngay taxaw toog ci ay plateau ñu dajale leen ci ay plateau ñuy fen di dajale loolu moo ñu metti ñëw am nañu ñun lu ñu metti ñun muñ nañu rey nañu suñu ndijaay nga yëkkati sa téléphone nga taxaw ñun ñoo jël téléphone yu xool soo gisee ñu am ñu am sañ-sañu taxaw di wax di weddi ci li mu wax. vérifier dañoo vérifier téléphone bi yëpp yëpp yëpp mu bi amul benn numéro Augustin bu ci nekk. amul na changé na changé communication boobu Samba Sarr du sa xarit Samba xamoo ko soo ko xamoon ku mel ni Lobatt Fall di ndijaayu Samba Sarr dee yow Augustin da kenn waru la fa njëkk Macky Sall lañ fa gis. Sall ñëw na ñëw na non Macky Sall non jarbaatu Lobatt Fall la xaritu Lobatt Fall la nitu Lobatt Fall sa ñëw Macky Sall ah, ah, boole wàllu kii Augustin yëpp ñëw jaal. man li may def li may wax boolewuma ci Matar Ba boolewuma ci Macky Sall ma ci Pape Gorgui Ndong boole wu ma ci capitaine équipe nationale Augustin Senghor laa wax moom laa wax moom moo moom moo xewle woon foofu ci oxygène bi moog waa waa ODECAF ñooñu noonu lii dina leen wex xat mais est-ce que mën nañoo xam Pape Sarr pourquoi nangu ñoon bàyyi Samba saa dugg parce que de waxkatu dëgg la xam na ni su li mu fay wax du leen arrangé àndul ak Augustin xam nañ ni sambasaar baat bi mu am Pikine Augustin amu ko Pikine dégg nga président ODCAV bu pikin amu ko fi ñun li may wax ak yow li may laaj du benn dama ñi ko bousculé ñi ko bousculé bu nekkoon man la ñu bousculé yàlla moom ma Samba day taxaw ne jéggal naa leen. kon man sama côté man laaw la wax man. mais ñu taxawoon ci porte bi ñoom dañ leen digal euh, ñu taxaw ci porte bi. foofu la mbir bi nekk nag dañ leen ko digal ñi ko ñi ko digal ñoo rey Samba ñoo rey Samba Sarr ñu leen digal pour ñu pour Samba dugg ñoo rey Samba foofu la ñuy commencé ñun voilà parce que doo bàyyi ay ñoo xam ne ay néew di doole lañ nga bugg dal seen kaw te doo wax ci njiit bi dama ne la Macky Sall aba muy nekk dara. lii sama kanam la Macky Sall dafa ñëw suñu kër sama maam la toog Samba Sarr toog Macky Sall nen ñëw bëgg dafa bëgg sama maam la baat jàppale ko. nekkagul woon dara nekkagul dara bi may njëkk gis Macky Sall man Macky Sall bi ma koy njëkk gis baa Baba Bonko laa ko xamee mu ngi itali mu ngi France billahi wal kitaabi bi suñu amul lu xewul lu xew lu xew suñu kër te Macky Sall ñëw fa ñëw jaale ñu wax dëgg yàlla lu xew foofu de Macky Sall teg na fa tànkam bi mu nekkee président bi mu nekkee ministre ñëw na jaale si sama maam Lobaat dégg nga amuma dara lu may teg ci kawam mais damay wax damay wax ci moom pour mu xam ne ni ki mu dénk sportu Sénégal indi lu ko coupe du monde indi lu ko coupe de coupe d'Afrique bakkan bu faat faat ku ñu faat lañu la ko la ko teg la ko tegal ci loxoom man loolu laay wax ba pare damay naan Macky tey comme Lobatt Fall sa ndijaay la rey nañu jarbaatu Lobatt Fall ay waay da koy ñaan ngir yàlla mu teg ci loxo jàppale ñu lii leer. da ngeen mu tekki loxo jàppale ñu. Macky leer la lii may ñaan Augustin mu tekki ndomb tànkam ba lii leer fonction bu mu munte am na ko dindi parce que affaire bi ci moom la xewee dama ne la bu Samba Sarr doon dem dama bëggul ñu déglu ma bu Samba Sarr doon dem oxygène muy man muy Bayla muy Aliou muy Souley muy Këccel ñun cinq personnes yi ñu ànd ak Samba ñun cinq ñooñu la ñuy boole ak Samba ak Augustin cinq ñi fa nekk boole ñu ci benn pax Samba du deewee noonu kon ñoom ñoo gën a xam ni ñoom ñoo gën a xam ni ñun bi ñu yób bi ñu yóbbee Samba Sarr Dominique une heure de temps ñu évacuer leen ñoom ñëpp ñu daw mais billaay wallaay tallaay nga rey suñu deret noonu rey suñu jar nijaay noonu rek nga dem. billaay ñun ñëpp la ñuy boolandoo dugal ci pax barke rasulullaay lii metti nañu ba ci kanamu yàlla Augustin na arrêté warutul toog ci plateau di wax moom warutul duñ ko ko mayati amul dara lu muy lay Samba Sarr ma koy leeral Sénégal ak ñu may déglu Samba Sarr téléphone am numéro Augustin nekku ci nekku ci nekkul ci moom nekkul ci ñaari jabaram yi dégg nga sooy wax nga wax say wax booy defaraat munoo defar lii lii munoo wax ba mu defaru loolu moo ma gën a indi fii tey Pikine info mu ngi Pikine site boobu mu ngi fa tey lu tax ma ñëw fii damaa xam ne lu am doole laay wax su ma ko waxee ñëpp nañ ma dégg nañ ma dégg yaa ngi may dégg sax Augustin damaa bëgg nga xam ne gis nga ki nga rey président de la république ñëw na di jaale si nijaayam ñaari yoon ñetti yoon si biir kër gi nit la dama koy wax rek pour mu comprendre pour pour ñi seetaan ñi xam ku xamul Samba Sarr dégg ku dul Augustin Samba saara la gën a nekk kilifa Augustin si boppam Samba Sarr ko gën a maîtriser football gën koo nekk kilifa amatuñu benn ñun amatuñu dara lu ñuy dox lekkatuñu naanatuñu demuñu benn activité lu dul lii leer lii dañoo bëgg mu leer de dañoo bëgg mu leer waaw may may may may may may waxaat Pape Gorgui Ndong suñu maire mu taxaw wax ak Macky comme tey yow lañ fi am yow yaay man de man man mooy suma kilifa parce que mooy suma maire dégg nga te ku jege Macky Sall la na dem wax ak président lii leer. jaajëf Pape euh, mu leer pour ñi koy déglu ak ñu seetaan plateau Augustin bi woote leen wala man nañ ma 2S invité ma ma waxaat lii. waxaat lii ni tey loolu mu wax amul waxul dëgg Samba saar yorul numéro téléphone Augustin li ñu metti mooy ba tey jaale si wuñu ba tey muy Augustin président on ak fo président ODCAV ak laa yemale ñooñu seen tàddu sedd sama digganteeg yàlla su ci yoon wala su ci yoon deful liggéeyam ñun dinañ lu ñu mën dinañ ko ci def billaay wal kitaabi yoon na gaaw ñun dañoo dañoo wóolu suñu wu réew ñun du ñu ñëw nag lu ñuy def ñu ne ñun dañuy dem fayal ji suñu bopp mën nañ ko de parce que ñoom ñëpp xam nañ fuñ dëkk mën nañ ko de li nit ñi di def di taal ay pono di indi ay ay ay bruit violence ñun Pikine mën nañ ko de parce que mbooloo bi topp Samba Sarr nii tey bu ñu ñëwoon ne fayul seen bopp kan moo leen di teye kenn mënu leen téye beneen affaire mais nag ñun duñ ko def dañ ñuy suñuy wax dañ ñuy déglu ñu nekk kilifa pikin gis ngeen ni ma mel yegguma fii Samba man ni ma mel man ni ma mel Pikine. ñu sax nga ni yow ni nga mel ci Samba lépp lépp lépp su ma gis su ma xam su ma su amee lu ma metti su ma amee c'est dafa am loo benn problème bu ma amoon muy Balla Beye numéro 2 convocation boobu Samba Sarr la ko joxoon. mais am na baar ñu ko Samba Sarr dénkoon ne ko convocation bi muy soit transmis nuñ koy wax soit transmis la euh, euh, plainte bu jóge ci procureur bi mu jox ko Samba Sarr Samba Sarr ne ko di si procureur moo leen ma nga ko plainte mais kii inspecteur moo koy at kii boo ko tëjee kaso ma rendi sama bopp sama jarbaat bi dugg kaso damay rey sama bopp kii kii tey kii nii parce que Pape Sarr bi du yow mi yaa koy tëj loolu waaw loolu marqué na ma trop ci moom mu ne ma demal nga wuyu ji ñu ànd ñu dem billaay si instant boobu chaque instant téléphone ma ngi si noppam xoolal moo ma gën a jot loxo moo ma ëpp connaissance moo ma ëpp coow moo xoolal sama lépp lu ma munti am ak lu may munti wax Samba Sarr laay dem su ma demee ci sama yaay ba pare dem ci ñi may dem man Samba Sarr laay berul mu ne ma del defee nii del defee nii del defee nii mu nekkoon koo xamante ne tey ñàkk nañu koo xam ni ñun dootuñu ko amati ku mel noonu li des dootuñu ko amati dafa am nag suñuy grand yoo xam ne tey ay rakkam lañu ñu ngi Amérique ñoom Mama Lobaat ñoom Bayla Lobaat gis nga ñooñu ak Samba Sarr benn lañu ay Ibou Sarr ñun suñu famille noonu loolu la ñu yàlla may billaahi wal kitaabi loolu suñu borom daf ñu ko may ñun mais gis nga ni Samba Sarr am ni si si Omar Zombay laa ko gëj a gis ak ci nongoloo du dëgg kon kon ku mel nii bu demee non na ci nguur gi gaawantu def ci enquête bu ñu reyoon ministre wala ñu reyoon député enquête bi du weesu ñetti fan. kon da nga jàpp ne gars yi ñoom defuñu ñu ngi ciy def lu ñu li ko war parce que man commissaire ba suma xarit la. ma wóolu ko mu am xoolal muy liggéeykat bu mag mooy commissaire bu Pikine muy commissaire Ba muy nit ku baax ku dal koo xamante ne xoolal am même lu mu xaritoog xaritoog yow bu nekkee da ngaa ñëw tooñ dalay teg ci yoon moom loolu laay seedal commissaire bu Pikine laa wax loo nekk xaritam nga ñëw tooñ da teg ci yoon ah dëggu rek laa ko xamee dëggu rek dégg nga keroog bi ma bi may attek baabooy ci laa xam ni kii ku dëggu la nit nit kuy atte ku ñu teg ci place nga nekk comme commissaire nii ngay doxalee comme commissaire baa looloo tax tey il faut ma sant du ma ba du ma wax ba pare te du ma ko du ma ko waxal loolu gërëm ko parce que mu ngi def liggéey bu am solo ci commissariat bi sans affaire u Samba Sarr bi laa la wax adjoint commissaire la sax du commissaire bu mag bi mooy mooy adjoint commissaire bi ñu ngi ñaan yàlla na nekk ministre de l'intérieur man dem loolu laa koy ñaanal. Eh, lu ñu amoon ci temps jeex na Pape Sarr tey moom lañ dalal la duñ defee lu jox la tàggatoo ak mbokk internet lay seetaan ak ak ak waaw li may tàggoo maa ngi joxe rendez-vous ñëpp di h tey si jardin bi mooy suma jardin bi maa ngi ñu ngi fay def point de presse ak famille bi ak autorité Pikine bi ak l'ASC cosaan 32 se yi nekk Pikine yëpp maa ngi leen di woo ñu ñëw ñu daje foofu def point de presse dégg nga waaw démentir li Augustin wax li mu ne xaritam la donc dañuy woo dañuy da woo téléphone ak ñàkk njaal bi mu ko njaa ñàkk jaale loolu lañuy wax gaaw pour li gën a tax loolu pour liggéey bi gaaw mu leer loolu moo tax ñun famille bi ñun waa pikin ASC cosaan ñëpp laa pikin Pikine yëpp xam nga xam nga seize commune Pikine yëpp tey dinañu daje ci jardin bi tey dinañu xam ne kii ñu faat nii noo kii du ku ndaw may gërëm ñëpp di masaw tey famille bi di masawu sama seex yi nga xamante ne tey sama saar moo ma leen may ay doomu Samba Sarr lañu bi ñu nekkee ay xale ba tey man maa leen yor muy buudaa ak aawdaa ñuy suma xarit di samay doom dégg nga ñooñu xam nga billaahi wallaahi talaay maay seen papa maay seen yaay di nuyu nag xoolal njaboot bi mu fi bàyyi ñu muñ xam nga faamata ñoom ñëpp xam su mooy taawam bi faamata su muy waxee rek nga xam ne kii nii jàmbaar dëgg la xam nga di nuyu nag di masaw bu baax suma ndijaay yi ñu nekk ci kër gi tey nga xam ne tey ñoom ñoo bokk ndey baay ma commencé ko ci Ibou Sarr xam nga euh, Ibou Sarr Serif Sarr Souley xam nga Kowri Sarr ak baaba doomam bi mu fi bàyyi xam nga ñoom ñëpp ak euh, nu mu tudd sax Ibou bu ndaw ñoom ñëpp maa ngi leen di masaw ñu muñ di jaale suñu maam tey moo ko jur muy suma maam maa ngi koy jaale bu baax a baax a baax di ko masaw muy sama maam buuri ak njabootu Lobaat Fall yëpp maa ngi leen koy jaale tey sama xol dafa fees quoi parce que images yi Augustin bi laa seetaan moo tax ma ñëw fii jërëjëf waaw mbokk internet u dakarnet point com tey leen leen loon yaakaar naa ni euh, Pape dafa déplacé wu ñëw waxoon lu mu bëgg a wax euh, duñu leen jox di daje ak ki ne nag incha allah aussi tamit di ko jaal euh, Samba Sarr di wax yàlla na ko yàlla suñu borom bi yërëm ci barke Seydina Muhammad di gërëm sama technicien yi Jéy ak Daawuda jaajëf